waaw xam nga bi ministre bi yëg leen ni deuxième vague Covid bi taxaw na ñu teg si ab diir président la République woote couvre boole ci it ni mag ñi war nañ leen a aar jàpp nañ ni loolu dafa war a indi ci ñu am benn taxawaay bu leer bu ànd ak tiitaange goog nga xam ni moom am nañ ko ñu ñëpp jëmale ko ci foofu nga xam ni boo jëlee Sénégal def ko ñeent pàcc benn pàcc bépp ñoo ngi fa mooy lekkool wante ñun dañuy ñëw mission Matam joge Dakar jaar Daara jaar Linguère fep fu ñu taxaw ay wajur ay kat ay elew ñoo nañ suñu wet di ñu fàttali ni ñoom jàq nañ jaxle nañ ndax matériel bi ngi ko waa docteur yi digle matewul ben yoon seen l'école am na sax koo xam ni école 300 élèves sans masque kese la yor ku si nepp jàpp donc ni fi ñu toll jot na ñu fexe ba nga xam ni lépp loo xam ni war na gunge l'école yi aarleen lépp lu jëm ci matériel bu waa kër docteur digle ak lépp lu ñu war a def ci lu gaaw pour que école yi am ndox am cet jàpp nañ ni war nañ koo jëmbal moo tax ñu woote woon ni école bu ne war naa am ndox war naa am gannuwaay am gardien am femme de ménage am matériel lu kër docteur bu mat sëkk table bu ne am lu baree ba bëri ñaari élève loolu nekk na loo xam ni jàpp nañ ci jamono ji war nañ koo jëmbal ndax gis nañ ni élèves yeeg jàngalekat yi bu ñu leen aaree dana Sénégal dana si gagné ñaari yoon benn dana tax ba mbas mi du jaaree ci ñoom mais ñaareel bi dana tax ba ñoom ñu nekk véritablement ñoo xam ni mën nañoo gën a gunge euh, waajur yi ak askan wi qui conscientisation ak plaidoyer ak sensibilisation bi nga xamni mbass mbas de laaj ci cas communautaire yi